ci suba ba léegi nga ne ci lii nag émission bi dina jeex di mani est que bu ba pareelu la pareel ah waaw waaw mani groupe bi pareelu la taxaw muy tàkk tàkkalu la eh. groupe bi taxaw ma jënd ko yow sonal nga ma yow lii lan la dimbali ma ah xam nga la laa la yëgal nag ku xamul buur saay na ñu ne la buur dee na mani yow guddi maag yow ci lal bi laalatuma la jegeetuma la xooluma la gisuma la boo toogee ndékki bëgguma merci reer sawa joganal très bien yow xale bi xanaa mënuma dimbali soxna si le dangaa defal loolu lépp xaw ma lu ko waral dofuma hmm. xale bi wàcc ci koñ bi moo la xaj sa àdduna ah. talatoo dara nag ah, gisuma loo talati ah, waaye kaay ma yëgal la fii maa fi ne bu sooba yàlla di nga dal xam nga lu ma lay yëgal ma ni prétexte prétexte a ngoog la pour nga mën a seen kër boo demee nga leen ma. Euh, euh, euh, fenn laa demul yow li nga war a xinte du lii sànnaa la bi te yow nga dem groupe di wéyal leeral koñ bi loolu nga war a xinte waaye du ñàkk fayda li nga def. ndok ñàkk ful la ba bëgg a dee. go. I'm gonna get me some love, love, somebody. mèo ta veta cha kaw mais mbi ala yaa ngi nalaw bayo bi nga ñëwee ba léegi vacance baale ko ñu salaam jàll loolu di yoon foog ñu dem soirée sénégalaise ah waaw bu ko def nag waaw koy ànd ah xanaa cob rek waxal dëgg waaw jéy rek ci moom laa far jeex naa ay yow tey ba yow nan la yow yow yow lan la laa wax yaay ma xool yaa ngi may dóor yow ma lay rey doo sa jëkkatu ndam man la man maa sama sensation loolu ma man sentiratuma la sentiratuma la ba ma ko xamee dafa yàgg kon may ma jàll kii di romb dab sax yàq sama liggéey xale bii ci koñ mooy bëgg a lëmbe suñu kër yi tax la ngay bu kii fii bëgg a saw say tànk faale wu la ah? gis na demal sa doole fay jeex sa poos jeex fa. demandel divorce bëggu la. demandel divorce gis nga bu la tullee ba nga fekk ma fii. boobu la defante di. sax géej ma ni xoolal. nokku ca gat nokku ca gat laa. yow jàllal fële. ñàkk fayda yow sax liy dagg sa xol man dama la koo tegul. safatoo dara xoolal am. ponkalum groupe la fi indi na ko denc ci koñ bi fu ko neex roof fu ko neex roppi. nawloowu la. Ah. sa kër a ngi nii lëndëm kiris <laughs> li jëntil boobu. xuli teg xam ba ca da ngaa foog ni lamp maa koy suurale de très près.